salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñu leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal réew mi kontaan lool tey di teewlu ñuy àddu fii ci télévision Futur Média seetu askan wi bis bu rëy ñu dëgmal ko xew-xew bu rëy ñu dëgmal ko waaye ni ngeen gisee tey toogaay bi loolu mooy waral ni tey ji lu rëy rëy la ci wàllu làmb waaye lu rëy rëy la ci télévision Futur Média bi nga xam ni moom mooy seetu askan wi. lan la lay waxtaanee mooy le 8 juin 2013 à Bercy lu tax Bercy Bercy nag dafa am histoire fii ci réew mi taarixam mooy ñi ngi ko xamee woon ci wàllu musique jaarale ko ci doomu réew mi mi nga xam ni képp ku tudd ku tekki ci wàllu musique ñu war koo xam à travers le monde moom la ñuy xalaat mooy Youssou Ndour ñu koy rendre un grand hommage moom mi nga xam ni moo découvrir loo Sénégalais lan mooy Bercy avec son or ce mythique orchestre le super étoile de Dakar tey beneen doomu Sénégal indi tey jii Bercy waaye jagleel ko li nga xam ni mooy sunu pow réew mooy sunu aada ji cosaan mooy làmb muy am ci Bercy le 8 juin 2013 plateau bi nag dañ koy séq ak ñi nga xam ni bariwul lañ leen di dajale ci plateau télévision Futur Média lu tax ndax ku ci nekk waar war la sas jox la ko moom ngay bay saa su nekk mu rafet lool moo tax mbayef googu rafet moo tax ñu daje fi tey waaye bis boobu dafa am lu muy signifié ci li nga xam mooy histoire làmb ndax làmb ju ñu yóbbu Bercy bëre dóor la ndax France dañ nangu noonu bëre dóor à menu ñu ni déedéet am na réglementation adaptée boo xam ni dañ koo nangul li nga xam ni mooy bëre dóor bi nu war a yóbbu foofu kan lan jagleel bis bi loolu xam naa ni ñi ma dar tey te bu ma leen tuddee ngeen xam leen ci wàllu làmb dañ ci gën a dellu si waaye li gën a wóor mooy fondation servir le Sénégal moom mooy marine bis boobu lu tax fàttali ñu ko noonu bëri ki démb bi mu amee inondation yi fii ñoo jëlee nit ñi cëmbani ma indi leen ci foire bi dugal nañ seen loxo ci daara yi dugal na leen seen loxo ci way néew doole yi waaye dugal na seen loxo ci ni nga xam ni ñoom ñoo nekk ci réew mi te soxla ndimbal ñu leen di dimbali tàllal leen seen loxo kon mbokku téléspectateurs yi dama leen di présenté ñi nga xam ni ñoom laa seqal plateau bi tey ci sama càmmooñ moom mu indi xew-xew bi ñu koy wax Amadou Badiane moom mooy sénégalais bi nga xam ni xaleel la dugal loxoom ci biir ndab li ni réew mi lu mu lu ci nekk war naa cee mën a dugal sama loxo fii ma yëngu nag mooy wàllu sport bi nga xam ni moom laa gën a bëgg mooy wàllu làmb maa ngi lay nuyu Amadou. El Hadj Abdoul Aziz ñu ngi leen di fay. jërëjëf Amadou dend ak kenn koo xam ni. dañ koy wax mooy la la bibliothèque ambulante de la ren mooy Hadj ngañ Diagne El ngañ Ngagne ngi lay nuyu. Euh, El Hadj Abdou Aziz jërëjëf maa ngi lay nuyu di la ñaanal yàlla di ñaanal yàlla Amadou Badiane lii ñu dugg tey euh, ñu dugg ceeg bisimilah yi génn ceeg alhamdulilah. jërëjëf El ngañ am na keneen koo xam ne dama koy présenté mooy le griot du troisième millénaire kooku nga xam ni lépp luy aada ak cosaan. gëstu na ko ba am lum ci teet loo xam ni bu ko yàbbee muy njariñ ci askan wi de bànneex ci ñoom El Hadj Mamadou Mbaye Garmi maa ngi lay nuyu. El Hadj Abdoul maa ngi lay ndokkeel di la ziar di ziar ñi nga xam ne ñoom la ñu seqal plateau bi yëpp ki nga xam ne mooy Badiane production ànd ak sama soppe El Hadj Ngeen Diagne ak mbokk téléspectateurs yi nga xam ne ni ñoo na ñoo ne sal à travers le monde El Hadj Abdoul Aziz. jërëjëf El Hadj Amadou Mbaye Garmi ma ñëw ci koo xam ni mooy la mémoire muy El Hadj Thierno Ndiaye El Hadj Thierno ngi lay nuyu bu baax ci plateau bi Hadj Abdoul Aziz papa maa ngi lay fay di fay ñi nga xam ni ñun ak ñoom ñoo bokk plateau bi waaye di fay ñi nga xam ni it maa ngi leen di nuyu bu baax a baax jàkkaarloo ak ñun ak ñu ñoo assisté ñu mais à travers le monde entier nag Abdoul Aziz papa maa ngi dellu di yeesal sama ziar ci yow ak ñu ñu bokkal plateau bi yépp jërëjëf plateau baa ngi noonu ñi ko séq waaye bis bu amee dañuy wax lan moo waral bis bi booba nag dañuy xool ki nga xam ne mooy Amadou Badiane mi nga xam ne moo tëgg bis bi xalaat mbër yi di leen ci yóbbu bala may ñëw ci El Hadj Ngane Diagne mu indil ma présentation yi Badiane lan moo waral tey jii nga yóbbu làmb Bercy waaw Abdou Aziz ñu ngi mbokku téléspectateur yëpp ñu ngi leen di ziara di leen balu àq ci li ñuy yëkkati suñu kàddu am naa ñun du gan ci làmb ji ndax wax dëgg yàlla il y deux ans ci ginnaaw ñëwoon nañ fi indi fi des événements yoo xamante ne jotoon nañ ko fi def ba ñu ko defee itam dafa am seetlu bu gàtt boo xamante ne jotoon nañ ko def ñu yéegoon ne am na loo xamante ne mënoon lañ ko indi ci làmb ji pour mu jëm kanam ndax fii kenn umpule woon ne euh, làmb euh, dafa metti waaw te sponsor yaa ngi ci promoteurs yi ñu ngi ci di góorgóorlu man ma ne woon am na yeneen possibilité yoo xamante ne mën nañ ko dem uti pour fexe ba li fi nekk gën a jëm kanam donc ci noonu laa ñëwoon tëgg ay gala en 2009 après depuis boobu ba léegi sama xel nag mu ngi nekkoon ci fexe ba làmb ji ñu mun ko exporter à l'étranger pour mën a indi yeneen partenaires yoo xamante ne ay chaînes de télévision dañuy nekk pour ñu accompagner. que mu nekk man wala suñu yeneen mbokku promoteurs yu ñu fi nekk ndax sport moom ci wàllu àdduna soo xoolee pratiquement télévision yi ñoo koy financé. Mm. donc il fallait que ñu jéem a xool naka la ñuy attirer yenn chaîne de télévision yi ci làmb ji boobu léegi nag ma doon ci dox ba yàlla dogal ma programmer euh, bés bi waaw ñu xamoon ne suñ ko tëggee Paris dinañu am ay ñoo xamante ne dinañ ci intéressé wu noonu laa jàppee depuis daw Euh, la date de Bercy waaw. Euh, jël nga ci àndal ci Bercy bi ci xeetu télévision yi nga xam ne ñoo war a nànk ànd ak yow ci bis boobu. waaw Bercy bi lu am solo la ndax bañ ko yëkkatee dañu ne daal dinañ fexe ba ñi nga xamante ne tey ay leader lañu ci wàllu woowu ñu jëm ànd ak ñoom ci noonu lañu dem waxtaan ak euh, benn chaîne boo xamante ne mooy Canal Plus tey ci wàllu sport à travers le monde ku nekk ràññee nañ ko ci. ba ñu ñëwee ñu waxtaan ak ñoom euh, ci làmb ji fekk ñoom itam amoon nañ ci yéene ndax doon nañ ci am ay yenn image yi donc ba ma leen yëgalee ne sama programme mooy ren ñu mën a tëgg bersi ñoom ñu ànd ci ma ne leen nag euh, liggéey moom ñu tax a jóg ci noonu lañu ñu ci droit yi ñoom ñu ne dinañ ci ànd ak ñun fexe itam ba ñaar fukki pays ci àdduna seetaan combat bi en direct donc ki ci ëpp solo mooy Canal Plus nga xamante ne tey ku nekk xam na ko te itam particularité bi mooy fexe ba ñëpp seetaan ko une vingtaine de pays en direct loolu c'est une première non seulement pour Canal Plus ndax trois heures de production de direct la bi ci des itam euh, Canal Plus ci làmb ci lu bees la donc Canal daal mooy ñu ca accompagner. jërëjëf yi. kon xam ngeen ni dirigeant télévision Futurs média amoon nañu anticipation bu nu defoon ci li nga xam ni mooy kanaal ñu ngi woon ci bouquet bi kon xam nga tey jii bu nu ñëwee ba ànd ak promoteur kanaal ñëw ànd ci ak ñun muy vingt chaînes de télévision yu koy wone loolu defe naa jéego bu réy la mais El Hadj Ngagne bala may ñëw ci yow damay fàtte ni lii nga xam ni mooy Bercy dafa am koo xam ni moo yor direction artistique bi muy Moustapha Dieng xam nga làmb bu ko waxee wax woy bu buñ ko waxee wax tëgg buñ koy waxee wax ay xar foofu kooku di Moustapha Ndiaye directeur artistique bi moo yor lépp lu nga xam ne mooy woy ak tëgg foofa ca biir bés nañ ci dellu si ak moom mu am innovation majeure boo xam ni ceinture lañ koy wax nañ ci dellu si bu ci bu ci kanamee mais El Hadj Ngagne Bercy ci làmb bëri dóor ak ñaari bëri fay yóbbu yan kàddu nga nu ciy sànni jërëjëf El Hadj Abdou Aziz euh, xool day seddti li tax xool di seddti mooy boobu ba léegi ñu ngi puus làmb di puus làmb di puus làmb def naa daj na réew mi léegi bi mu dajee réew mi def naa sous région bi ñu ngi jël seen wàll ndax yaakaar naa télévision Futurs Médias tey jii ña nga ca Gambie pour couvrir fa loo xam ne ci sous région bi bu ñu fa jógee nag war a du war a dem Europe nag loolu day leneen dama ne làmb dafa toppiwaat am ku mu toppi kan fii bul fàttali histoire Euh, Maurice vasin moo njëkk a tëggal làmb dóor au Sénégal tubaab la woon moom la ñu njëkk gouverneur autorisé mu tëggal làmb dóor parce que booba euh, li nga xam ne mooy euh, kiiwu France mooy dox fii gis nga loolu mooy dox France ba léegi loxoy kese du fi dóor i fallait que nga am autorisation parce que ñu bëri simple la ñu donn lutte traditionnelle bañ nañ ko ba ne lutte traditionnelle sénégalaise kon defe naa ne moom la ñu donn bëri dóor Maurice vasin la ñu njëkk jox autorisation bu def ko fii au Sénégal ci incident ba ca amoon ci nettali mag ñi ci lañuy ñuy récupérer euh, li nga xam ne mooy autorisation bi jox ko sunu maam yi fi nekkoon ñoom Baye Yaxya ak ñi ci des ñu commencé nag njëkk a tëgg bëre dóor fii au Sénégal kon tey bëre door daa fekki maamam mooy Maurice Vazin mi nga xam ne moo ko njëkk tëgg fii ñu yóbbu bëre dóor fële waaye nag bu leen fàtte ne Bercy jéem nañ fa bëre door yàlla dogalu ko tubaabu joor la woon ak màng ñu waroon ko fa yóbbu ba ñu war faa bëri ji yàlla dogal gis nga lii mu dogal tey booba mébitu Youssou Ndour la woon ak Gaston Mbengue yàlla dogalu ko ndekete Amadou Badiane ngi ñëw en 2009 tëggalan au Sénégal Grand Prix de France moo ko fi njëkk a tëgg au Sénégal yàgg na bëgg a yóbbu làmb ji en France parce que Grand Prix boobu man laaj naa ko laaj mu ne ma am na lu ma ci nas ndax moom mii 2009 ba léegi ñu ngi na sa ko nocc maag moom dañu am heure yi ñuy liggéey ci loolu lii presse bi sax léeg-léeg mu bindaan ci mais du ma wax moom xam na ko parce que bu ma waxee léegi mais maa ngi ko bàyyi ak presse bi euh, combat bii ñu jëm alternative la ci combat yi parce que waxaale la woon ci yeneen mbër muy ñëw di ñëw ñu wut ay secours ay alternative ndekete revanche bi daq ci revanche yi moom lay décroché mooy ban le 16 avril 2006 ca ca Thiès mu boole ñaar El Hadj ñaari champion yoo xam ne ci kanam tuuti bu ñu toogee fii dinaa ñëw ci seen palmarès nga xam ne dinaa ñëw ci seen jaar-jaar ak tamit fi ñu toll ci làmb ndax El Hadj Thierno xam nga ne mbër balaay toll ci aat dëgg dëgg dëgg dañ koy wàññeel ay mbër yoo xam ne bëre woon na ak ñoom tanq mbër mbër ngi bëre te ña nga nekkuloon ci làmb ji ñu ngi fi yegg ko ñii nag dañu yegg. comme ñoom ñii defe naa am na ñu maturité ñu jël lu toll ni làmb teg ko seen ginnaaw ñu war a honoré ji Sénégal tombeek lan tourisme bi ministère du sport ñu def signature bërka démb rek pour mën a jaay tourisme à travers le monde jaaree ko ci làmb defe naa ne combat bi ci loolu lay bokk kon yaakaar naa ne fii ñu toll tey ah ñu ngi préparer loo xam ne tey te ñii ñu ko teg seen kaw de c'est des grands champions xam nañu responsabilité bi ñu teg seen kaw kon am na comportement boo xam ne maa ngi koy lancé à partir de maintenant dañu bëgg a jaay suñu culture à travers le monde kon am na image bu ñu bëgg a bu ñu war a wane à de tey ci combat bi ñu jëm Bercy El Hadj Abdoulaziz jërëjëf jëf Hadj nga njaañ ci historique bi nga indi moo tax mag ñi nii loolu bu ma doon buur def ko buur passé na ko lu mu bëggoon a def tey bu ëllëgee am na keneen ku ko def muy Amadou Badiane ma jëm ci El Hadj Amadou Mbaye Garmi le gré du troisième millénaire télévision Futurs Médias dox jéego ministre du tourisme et des loisirs ak ministère du sport ñun dañu jël làmb def ko comme vecteur du mooy jaay suñu aada ak suñu cosaan ndax bëre bi 30 minutes la waaye xar foofu faak bàkk ak woy làmb ji loolu la nit ñi soxla moom la tubaab yi amul Mamadou ci sa jàngat ci jéego bi nu dox taseeg Badiane ak jéego bi télévision bi jox jëmale askan wi dëkk li nga xam mooy bitim réew lan moo ci sa kàddu bala may dem ci Thierno Ndiaye jërëjëf Abdoul Aziz yaa tudd ministre des sports de yaa tudd ci ànd ak lëkkaloo bi nga xam ne nii moom mu ànd pour bëgg a feeñal lépp loo xam ne lii mooy raay réew mi lépp loo xam ne lii mooy cosaanu réew mi lépp loo xam ne lii dëgg-dëgg moom la réew mi di doxe waaye léegi sama soppe yi ngañ daaj dafa tudd Maurice mi nga xam ne ca taax ma lañ daan bëre ba nu wàcce licence bi jox ko doomu Sénégal yu mag yooyu la waaye xel yi nag war a delluwaat nag dëgg-dëgg tuuti nag ci histoire ay eh, Abdoul Aziz hmm. xanaa saxel war a dem ci général de Gaulle hmm. sa xel war a dem ci François mi sa saxel war a dem ci ki nga xam ne kii dëgg-dëgg ñoom ñooy dirigeant yu mag yi nga xam ne nii ñoo nekkoon ca Paris daan lëkkaloo mi bëggoon rek réew am indépendance addinay dox hmm. di dox grand sénégalais bu ñaan Amadou Badiane ne moom tamit ci ñu bëgg feeñal raay réew mi ci la bokk mu doxale nag combat bu mag bile boole ñaari champion yu mag yi le ñu dekkiwaat ci foo xam ne kii ki ko dundaloon kooku nag mooy Youssou Ndour et Abdoul Aziz hmm. ñu ngi dem ba sumat de juin xel yëpp war a dem ci la 16 bi général de Gaulle wàccee ci réew mi te Abdoul Aziz 1872 hmm. ci la sunu maam yi njëkk a dem Paris dellu fa 14 18 jàll fa 39 40 ñu ne kañ la ñu fay dellu ñu ne ñu nga fay dellu ak le 8 juin eh mbay ndaw bés bu rëy ndaw bés boo xam ne bile bu ñaari mbëri jàkkaarloo ba sénégalais yi daje ci la ñoo xam ne daal dëgg-dëgg lan la sénégal yi représenté Abdoul Aziz jërëjëf El Hadj Mamadou Mbaye Garmi waaye na biir waay du troisième millénaire na biir waay waaye mbokk yi damay ñëw ci kenn ku nga xam ni wax naa leen ko sànq c'est la mémoire de la lutte muy El Hadj Thierno Ndiaye El Hadj Thierno bés bu rëy ñu tuddee ko fondation bu rëy servir le Sénégal. soxna bu rëy bu rëy mi nànk ko ñi am doole ci biir mi dugal seen loxo dimbali néew doole yi ndax réew bala moo dox ñi am doole dañuy dimbali ñi néew doole. asternu bis baa ngoog làmb ji asternu tur waa ngoog ci lu gàtt ma bàyyi la nga dugg ci biir waxtaan wi. Abdoulaye Aziz. Hmm. papa. tout bon citoyen doit servir son pays. Hmm? Amadou wàcc nga waaye guléet foo ko déggee rek musta am guléet foo ko déggee musta am guléet guléet ñëw na Amadou bajaan guléet la tudd guléet ñëw na indi na lu ñëpp doon xalaat waaye ci moom la sunu borom awale ni moom moo koy ubbi ji Youssou Ndour boo indee tourisme bul sori doon na ambassadeur u UNESCO doon lu ne mais boo indee tourisme indi Mbagnick Ndiaye ñu lënkale ñoom seeni mbir lu jiitu ñu yore ay poste ana Adrien tëgguñu fa drapeau yu sundoor hmm. séeréer yi ñu ko Papa Ja ñëw tudde ko ko ana Mbagnick Ndiaye ak Ndefleng dajalewul askanu séeréer yépp ni damay sartonte ak yéen ñun ko lan ngay sartonte ak ñun mu ñu bëggatuma mu ni yéenay doon mbindaan yi yéen la ñuy jiiñ lu ne yéen la ñuy tuumaal lu ne danaa xëccoo ak askan wi ba ñu jox leen gëdd bi ngeen moom ndax seen maam yi rekk doon buur yi di garmi yi daan sa doole nag ñaawul daw gàcce la bañ taxawoo noonu mu su taxawee ne te amaguñu poste di servir seen réew à travers le monde entier foo toog dégg ñu ni Youssou Ndour ak Super Étoile foo toog dégg ñu ni Mbagnick Ndiaye ak Ndefleng yàlla dem ba dajale leen ci bis bu rëy ci at mu rëy moo 2013 ku ko mën a fàtte ci réew mi 2012 ku ko mën a fàtte ci réew mi bi Macky ñëwee doon président dajalee kan wi boole nag ñooñu xam ne dañu bokkee xalaat ñoom mit ñu xalaat seeni ba xalaat nañ seen bopp ni tourisme daal ñu ñu koy jàllale mu wéy mënul génn ci sport touriste bu fi ñëw sport lañ lay wan sport bi ñu lay wan nag mooy bi ñu moom di sunu cosaan di suñu aada mu ni damay lënkale ak yéen ci tàggat yaram lënkale tourisme bi ñu ànd génn dem bi ñu àndee génn dem nag yoon wi leer na guleet ñëw na ci guleet gii nag ñoom ci la ñuy jàppe abadan ci guléet gii ñëw ci la ñuy fonke abadan ci guléet gii ñëw la maam ya dàqewoon noon ya ca 14 18 Mamadou wax na ko li ñu leen dàqe ca 39 45 fii samp pancarte yi bi ñu koy génne fii jooy yuuxu ay ndaw nar a seen deret ngir réew mi moom boppam Amadou Badiane bii tey nag moo indi loolu dundal ko dekkil ko moo fu ñu jëm Abdoul Aziz omnisport stade boobu ñuy wax Bercy fële ñu jëm ñan lañu indi ñaari gaynde ku ci nekkan la kii di Bombardier du bàyyi dara kii di Baboy du bàyyi dara ngañ wax na ko nee na bi réew mi doon wër mënuñu ko am waaye réew mi lu ñu mus a wër di ko wut suñu ko amul dañu génn dem tugal bu ñu demee tugal am ko fa Abdou duma sori tugal a ñoo ngoog ba le 8 juin ak Amadou Badiane jërëjëf Asterno Ndiaye ma leen di wax ni ñu tàcc ko ci public bi am nañ ci ki nga xam ne mooy Cheikh Sarr le président des amateurs ak Ablaye Thiam mi nga xam ne moo fi toogal CNG waaye El ngañ bis bu toll noonu. bu rëyee noonu. foog am mbër yoo xam ni ñooy bëri avant Baboy di bëri ak ki nga xam ni mooy Bombardier. Bombardier kon mbokk yi bala may ñëw ci Cheikh Sarr ak Ablaye Thiam damay ñaan ñu dugalal ma ki nga xam ni mooy Bisimi Ndoye mi nga xam ni ci bis bi daf ci war a jongante mook ki nga xam ni mooy Elton waaye ñu dugalal ma Bismi Ndoye ñu tàcc ko Bismi Ndoye Bismi Ndoye écurie Soumbédioune taille 1m90 poids 140 kg palmarès 13 combats 8 victoires 3 défaites 2 matchs nuls ca Bercy ame amee laata combat Baboy ak ki nga xam mooy Bombardier bis bi ndooy ngi noonu mbokk yi ñu tàccu ñu dugalal ma ki nga xam ne mooy Elton. Elton, école de lutte Balla Gaye 2, taille 1m80, combat 12 victoires, 3 défaites. noonu ñu nuyu au passage Balla Gaye numéro un mi nga xam ni gunge na xale yi bu nu egsi fii ginnaaw bu mu tekk tekkee ngembam mbokku téléspectateurs yi li nga xam ne mooy dàllinkoor ji ci bis bu réy boobu mooy ñi nga xam ni mooy jàmbaar yi nga xam ni 2006 leen bëri woon Thiès ngañ waxoon na ko léegi may ñaan ñu dugalal ma ki nga xam ni mooy bombardier bu pare mu dugg si. Serigne ja alias Bombardier écurie Mbour taille 1 mètre 95 Palmarès 21 combats, 15 victoires, 6 défaites. Il a terrassé Tchautchenko, Manga 3, Elhadji Guèye, Alioune Sèye, Pape Zallo, Tyson, Ibou Dafa, Mame Yambane, Mbaye par abandon, Tchèque. Ses défaites, c'était contre Tyson 2, Gris Bordeaux de face, à trois reprises. doomu Mbour baa ngi noonu ñu tàcc ko ñu ngi nuyu ki nga xam ne mooy Pape Dia moom la àndal moom lay àndal di magam ñu bokk ndey ak baay te mbokk ndey koy jur bu bis méttee ba metti doomu ndey ay taxaw mbokk yi ma indi ki nga xam ni moom la ñuy wax le lion mooy gaynde gi muy baaboo yi mi daje woon ak Bombardier ca Thiès ba tey Bombardier ngi sàq mi loolu boobu boobu miti ñu dugalal ma ki nga xam ni mooy baaboo yi la la di Balla Gaye numéro 2 alias Baboy taille 1 mètre 75 poids 97 kilos palmarès 25 combats 16 victoires 7 défaites 2 combats sans verdict il a terrassé Massamba Diagne Martine, Ibou Diop, Youssou Faye, Balagay 2, Zalo par deux fois, Boy Kairé par deux fois également, Cheikh Baba, Serigne Ndiaye, Dame Sounger, Lac de Guerre 1, Baïdouf, Bombardier, et Gris Bordeaux. Baboy a perdu contre Tafa Gaye, Yekini à trois reprises, Khadim Ndiaye par deux fois, Balagay 2. Ces deux combats sans verdict, c'était contre Tafa et Lac de Guerre ñu tàcc ko babo yee ngi noonu mbokku téléspectateurs yi defe naa le décor li toog di wax le décor est campé mbër yaa ngi noonu Elton a ngi ni toog Bisimil na ngi toog Bombardier jàkkaarloo ak ki nga xam ni mooy euh, babo yi bu ci kanamee ki nga xam mooy Moustapha Dieng dina ñëw ndax waxtaan wi ndax fii ñuy ànd ba Bercy maak sama gaañi réew mu gaa yi wàcc nañ fa wàcc ndax am na tukki yoo xam ne ñoom ñoo may ànd def ko dafa am ku nekk ci public bi ñu koy wax Ablaye Thiam moo fi nekkal sng ku ne xam na ni France bëre dóor ak loxo dañ ko fay tere dafa am lu mu fay exiger nit mooy protestant mu mel ni dafa CNG dafa adapté réglementation bi ci li nga xam ne moom la waa France di wax moo tax mu bëgg ñu joxal ma micro bi Ablaye Thiam mu wax ma disposition yi nga xam ni mooy si le disposition réglementaire yi nga xam ni prévoir nañ ko ci bis bu rëy bi nga xam ni 8 juin 2013 lay am ci ci ci ci Bercy Ablaye. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp. Euh, di indi nuyoo président Alioune di indi nuyoo euh, vice-président chargé de la lutte avec frappe Cheikh Tidiane Ndiaye di indi également nuyoo Thierno Ka mi nga xamante ne bi moom moo may yebal fii euh, Abdou Aziz comme ni nga ko waxee euh, lii la CNG doon ñaan moo taxoon aussi mu bokkoon ci li tax réforme yi ñu indi ci at yi yëpp di ko indi ci làmb ji lii bokk na ci euh, fexe ba ñu mën ko exporter yaakaar naa ne ku ne daana dégg Alioune Sarr di ci wax ku ne daana dégg aussi Cheikh Tidiane di ci wax euh, euh, sport la comme yi sport yëpp donc tey Euh, pourquoi pas waruñu rêver ba tey mu war a mën a dem olympique euh, lii nag comme ni ko waxee rek euh, loo gis dafay am tàmbali fii la ko suñu borom jaarale ñuy wax rek ne CNG ak dispositif yi nga xamante ne bi moom la règlement bi yore dara du ci soppeeku ndax mbër yi ci tutelu CNG la ñu nekk licence yi ñuy bëree ci effectivement licence même licence yi la donc euh, règlement yi aussi tamit même règlement yi la effectivement euh, bu ñu waxee protège dents ku ne xam na ne loolu yàgg na am fii bañ nañ ko ba am na mbir yoo xamante ne yu bari yoo xamante ne bi léegi moom ñoom dañ ko utiliser hmm. te loolu euh, CNG yàgg na yàgg na ko utiliser da di kay xanaa mbëri ñoom ñoo ko dul euh, euh, def te CNG aussi exigé wu ko pour que mbër mi di ko def balaa dugg ci géew bi euh, comme nag ni ko français yi di defee nga xamante ne bii kenn du fa bëre wala kenn du fa def sport de combat te defuloo protège ah mais su boobaa aussi daf ñuy fekk si ci loolu rek ba nga xamante ne bii mbër yi kuy bëre tamit da koy sol. da ngay daal def sa protège dents rek mais li ci am solo rek moom mooy effectivement wàllu euh, xarxa foofa beeg loolu li ci an war a ànd lépp gants yi nga xamante ne bii ay gants coupé la bon bu bu du tere aussi mbër mi jàpp parce que bëre du ko bëre dóor lañu wax mais jàpp ak bëre la wax mais li ci am solo rek aussi tamit mooy que tey jii li nga xam ne dañ ko exporté muy culture bi nga xamante ne bi lépp day jóge fii daal di dem dem euh, France euh, dispositif réglementaire bi tamit même chose lay doon rek li ñuy tere fii moom la ñuy tere fële li nga xamante ne bi moom la jël fii comme dispositif moom la ñuy jël fële aussi tam comme dispositif rek c'est-à-dire que c'est une première euh, nañu ñaan yàlla mu réussir ba nga xamante ne bi Euh, yeneen promoteur yeneen promoteur dañ jël di ko exporté ba tubaab bi sax xaj na ak américains yi di ko jël fii di ko yóbbu loolu daal li nga xamante ne bii moom lañ doon ñaan ah ñu ngi ñu ngi ñuy essayé yàlla lañ ci yàlla jàppale ñu yóbbu ñu ci jàmm ba nga xamante ne bii liñ ci bëgg lépp dinañ ko ci nda ci ndam danañ ko ci am. Abdoulaye jërëjëf loolu nga wax lu leer la li ñuy bañ fii la ñuy bañ foofu ci gants yi loolu la tubaab di wax des gants ouverts mooy say baaraam day feeñ. ba nga mën a jàpp parce que jàpp a koy def defe naa loolu mooy li nga xam ni lu ci am solo la mais bala muy ñëw ci Cheikh saar dafa am kenn koo xam muy directeur artistique bi Moustapha Dieng kooku nag dafa indi innovation bii yoon ci li nga xam ne mooy bëree diggante Baboy ak Bombardier damay bay ñu dugal ko mu ñëw toog ba nit ñi xamee ko ma doog a ak ki nga xam ne mooy Cheikh Sarr ñu dugalal ma ki nga xam ni mooy Moustapha Dieng directeur artistique bi ñu tàcc ko Moustapha Dieng ngi noonu defe naa ni bu ci kanamee dina wax li nga xam ne mooy yu bees yi ñu indi ci li nga xam ne mooy diggante Baboy ak Bombardier ma jox Cheikh Sarr Cheikh Sarr bu ne France wax immigré yi yi nga xam ni diaspora bi ñu nekk Espagne Italie Belgique Allemagne ñoom ñëpp ñu war a ñëw foyer nit ña fa nekk loo bëgg ñëw ci làmb ji mu am appel boo xam ne yow président amateur yaa leen ko war a wax lan ngay wax sunu mbokk yooyu. jërëjëf jërëjëf ngaañ maa ngi nuyu mbooloo mi yëpp ñëpp ñu fi nekk di nuyu waa Sénégal parce que yaakaar naa ne ñëpp ñu ngi seetaan fépp ci réew mi. Euh, Badiane revanche bi nga def amateur Sénégal yi ñoo ko gën a soxla que sax France mais xëy na yàlla ñoom la ko jagleel lenn rek laa bëggoon wax xam naa ne Bercy bi nga ko tëggee. du fa xaj parce que ñaar ñoom ay ñaari alpulaar lan te ku dem Nantes la Jolie nga dem Bordeaux nga xam ne diaspora bi yëpp tukulóor lan donc lenn rek laa leen di ñaan yéen mbër yi parce que lii test la pour Badiane test la pour ñaari mbër yi parce que test la pour Badiane soo déggee mu wax test la pour Badiane pour yeneen promoteurs yi parce que yeneen promoteurs yi ñu ngi envisager tëgg parce que gis nañ fii ay signature yu ñuy def si yeneen béréb gis nañ signature yi du war a dem ay New donc lii test la pour Badiane test la pour yeneen promoteurs yi mais yéen tamit mbër yi test la si yéen si ngeen fa defee combat boo xam ne combat bu neex la bu ñëpp di xalaat je crois que français yi seen bopp ñoom ñooy bëgg de temps de temps que plus que ne dañ koy génne si kanaal kanaal nga xam ne dafa wër àdduna donc li may ñaan waa diaspora bi muy waa Bar waa Espagne waa Italie waa France surtout ñoom la waa Angleterre ñoom ñëpp nañ ñëw parce que lii test la si ñoom su liy baaxee rek promoteur yaa ngi fii ku si nekk pour yóbbu mbër du dara donc li ma leen ñaan mooy ngeen def ko si yar def ko si teggin France dëkk tubaab la ñun africain la lu mu bëgg mooy culture bi culture bi moo leen neex ngeen bëree ku xam baabooy xam bamboor di xam ne ay xale yu yarulan je crois que daal man aw ma dara lu ma si wax lu ma wax daal bajaan mooy amateur yi nekk Sénégal ñoom ah revanche bi soxla woon nan ko de <laughs> jërëjëf Cheikh ñu tàccu Cheikh defe naa ni bu ñu egseet ci Moustapha Dieng mi directeur artistique bi di nga ci mën a xamee waa diaspora bi jàppe ci ni avant làmb ji am manifestation culturelle dafay am na tax ñu ñëw bul fàtte ni mbër yi ku ci nekk sa njaq nga yóbbu ku ci nekk sa sow nga yóbbu sa sangoor nga yóbbu ginaar ya ngay dañ ko yóbbu lu ci nekk lu def fii ci làmb ji dañ ko yóbbaale Bercy mbokk yi ma ñëw ci ki nga xam ni mooy Ngagne Diagne ngañ Elton a ngi nii bisimido yi ngi nii lan nga may wax jërëjëf Alaaji Abdou Aziz ci li nga xam ne moo sës ci grand combat bi war a dem Bercy euh, Elton ku ne xam na ne bi mu jegee ci combat yàggul war a ñëw war a dem Bercy bëri ji ak bisimido yi mii waaye damay taxaw tuut ci bis mi pour wane ne beneen mbir a ngi ci Sénégal boo xam ne ak promoteurs yi vraiment ñu ngi leen di féliciter lii mooy wan ne promoteurs yi ñu ngi indiwaat beneen beneen coopération seen biir. Mhm. ku ne xam na ne Bismi dafa ne ci contrat Aziz production. war a bëri le première mais Aziz xam na ne Bismi làmb la am di ci daan doole. mu woo Badiane woyofal ko ko ne ko bàyyil mu ñëw ci manifestation bi le à partir du premier mai mu nekk sa disposition waaye du tere. dafa ne ci préparer combat waaye lii nga xam ne mooy lancement bi nga xam ne moom lañu war a def na ko fekk ji kon Aziz ñu ngi koy gërëm di ko sant ci turu promoteur yi mooy mbokk yi dama bëgg ngeen tàcc ko bu baax tàcc loolu bu baax a baax ci jógee Elton a ngi di champion bu mag dajeeg champion yëpp war a dajeeg bis mu doy fan la ñuy daje ji ñu ne Bercy <laughs> histoire da koy téye lii yëpp histoire da koy retenir yan mbër njëkk dem Bercy bëri jëfa keroog bi baabooy di bëri ji ak ki nga xam ne mooy bombardier ñu ne Bismi Ndoy la ak ki nga xam ne mooy Elton kon ngeen xam ne boobook léegi bu ñuy wax pour ñu jekkal toogaay yi bu ñuy wax pour violence bu ñuy wax pour disipline bu ñuy wax ak professionnalisme c'est parce que dañu xam ne làmb ji war nañ ko mën a génne ci biir Sénégal parce que loolu maa ngi ko nangoo ci président Lamine Diack keroog bi ñuy def roofoo mu ne ma xale yi nee leen ñu gën a indi discipline ci làmb ji te gën a wane culture ma ne ko lu tax mu ne ma ak prince Monaco toujours bu làmb amee ñooy toog di ko seetaan mu ne ma Usain Bolt làmb rek la bëgg da koy seetaan président Lamine Diack wax ma loolu ma xool mbir mi ma ne kon à partir de loolu te xam nga Badiane euh, xam nga schéma yi bu ko daan def ci ordinateur am ñu toog mu ma koy wan di ma ko wan di ma ko won ba ne ma lii Bercy la xaj moom mi depuis daaw pare na pare na projet bi depuis daaw du ren depuis daaw pare na projet bi léegi nag li ci des mooy l'aspect culturel kon defe naa ne bis yaakaar naa ne ah yow dugg nga ci histoire mooy lan première bëre d'or ci Europe yaa koy bëri ji ak Elton kon je pense que à partir de maintenant war ngeen soigner seen taxawaay parce que seen image day wër monde entier parce que Doodiane def ci ànd ak Canal Plus te Canal Plus fépp la darale kon defe naa ne label boobu ak tamit bëgg a jaay lu euh, sunu tourisme bi nga xam ne bii kii ñu ko jox ku bëgg làmb mu Youssou Ndour ku ne xam na ko waxuma la télé waaye dafa bëgg làmb ci boppam amateuru làmb la ba pare nag ñu jox ko tourisme ñu jël Mbagnick Ndiaye ni la ko ni la ko Cheikh na waxe woon ne président Ndefleng ba pare ministre sport yàlla dajale seen jamono ak ban jamono président Macky Sall mi nga xam ne ci ci ci ci ci ayam ak ay président Alioune Sarr ci la bëre dóor jéggee fii dugg avion dem France kon defe naa loolu histoire la je pense que man tey question yi dama koy bàyyi ak Cheikh Thierno Ndiaye ak Alaaji Garmi mais li ma leen di wax rek mooy ñaax leen ne leen xam ngeen fi ngeen jëm kon à partir de maintenant war ngeen mën a defaraat communication ni ngeen di communiquer bu leer bu rafet boo xam ne yow Elton ak ki nga xam ne mooy Bismi pour que ñu mën a jaay marchandise bi à ci Europe mais fii moom làmb mokk na fi fii làmb mokk na fi ndax tey mbër yaa ngi ci cent million di départ di départ di dem ko te mbër ka démb laa laaj garmi mii ànd ak Balla Gaye ànd ak Eumeu Sène ànd ak Modou ànd ak Tapha dem Zénith Paris signé fa te yemul foofu kon yéen da ngeen di bëri ji ñee dañu signé ji yéen ngeen war a bëri ji kon yéen dugg ci histoire bëri door ci Europe kon jërë ngeen jëf loolu laa leen di ñaaxee d' abord avant que ñuy ñëw ci plateau bi euh, El Hadj Abdoulaye. jërëjëf El Hadj nga jaañ ci ni nga indee li nga xam ni ñoon nga war a préparer ñaari bëri yi Thierno ma bàyyi la nga dugg ci bis bi laajte parce que tey dama lay bàyyi nga jagleel la laaj yaag El Hadj Mamadou Mbaye Garmi looy njëkk a ñaari xale yi Thierno Ndiaye yëkkati sa micro. Baye Abdoul Aziz. Ah. bala may laaj. sunu mbër yi xam ni suñu mbokk lañu toog ak ñun dama dégg nga leen wax lu rëy Amadou Badiane ni bis bi li muy rëy lépp sénégalais yi ñoo ko moom waaye la mère de sénégalais moo ko moom et le père des sénégalais du fi des benn sénégalais travers le monde entier cinq continents yi bis bi c'est le jour du rendez de des et de l'Afrique non seulement du monde entier xeet yëpp di nga leen fa gis ndax dañu bëgg sénégalais yi sénégalais bëgg leen te foo dem ci àddina doomu sénégalais nga fa Abdoul Aziz du sori kii di Bismi Ndoye ki ñu ko duppee dañ daan wax jinne la mbaa malaayka la mbaa melax la baay Bismi ñoo koy nuyu kii di Elton boo gaarewul ci moom doo taal sa oto essence yëpp eltone leen moom <laughs> bés mi bi ñuy mujj bëri sa dernier combat gis nañ la ak coppeeku gu rëy goo indi Elton sa dernier combat yow gis nañ la ak coppeeku gu rëy goo indi waaye yàlla mooy dogal ndax la nga mayee woon sa dernier combat bii ndax di ko may Bismi Ndoye micro Bismi la nga defoon sa dernier combat ndax di ko yokk am doo ko yokk dóor bi taxul ñu wax de culture bi lañu ñu sàmm tourisme dafa ànd ak sport ñu àndandoo dem yéen ñaar ku ci ne loolu laa lay laaj la nga maye woon ndax di nga ko mayewaat Elton fot ci ndab fotaat ci nee nañu bënnale la dañ la waaye bismi ndóoy la nga ndax di nga ko yokk fëkk alton xalab wala alton la xalab loolu rek laa leen di laaj yéen ñaar ñëpp elton ñu bàyyi la nga tontu waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu senegal di nuyu ñu teew ci plateau bi yëpp nuyu suma mbokk mbër yi Bombardier Baboy Bismi ak ñu fi teew ñëpp ah li ma laaj nag lu jar laaj la ndax dinaa fa dellu loolu incha allah Bercy incha allah sama Bercy la bu soobee yàlla te war naa wane suma bopp ci bis mi ndooy am nañ fu ñu jaaroon te bëgg naa ko fa jaaralewaat incha allah. bis bi bis bi. maa ngi nuyu ñu fi teew ñëpp ak askanu làmb ak continent bi yëpp ak waa fondation service le servir le Sénégal. Elton moom fii li ma defoon dinaa si yokkaat bu baax parce que maa ngi moom am na fu ñu jaar ku nekk daan nga sa moroom daan naa ko mu daan ma kon bii dama ne final la. bel ba bel ba Bercy la. bel ba Bercy la final ba Bercy daje ak yow jóge fa daje ak moom moo tax ma laaj leen laaj bi bu ñu nax foo jëm. fu ma jëm xanaa jàpp ko daan taal essence bi yëpp boo Elton di doy benn Elton yëpp laay fay. <laughs> Elton Elton. ah li nga li nga wax nag rëy na rëy na dama yaakaar ni doo am essence bu jour boobu yaa dul tàq bés bu bés boobu dara du doy see parce que xoola <laughs> bés boobu xam naa ne jàmbaar nga ja maa yow xamante nañu. Uh-huh. mais bés boobu dañ ko war a màggal. parce que dañu nekk ay doomu réew doomu Afrique yuy dem. Uh-huh. jaay suñu culture dañu war a gore bëre ko si jom ak fulla xam naa ne nitu jom nga nitu jom laa mm. kon nag champion nga. nu ko bëree ba mu saf sàpp ma daal loolu moom euh, yaakaar naa kenn du ko wax Elton bu dee fulla fayda mhm. fit ah yàlla nag moo xam waaye bu dee jom fulla fit hmm. képp ko xam Elton bu at bi xam nga ni ah ah ah bu sifflee ngay daal. Eh? bu sifflee. dina mel ni tulleeg màll yi. waaw dina métti ci moom ah, Elton waa bis bi. da ngeen a bëri ku ne daan sa morom def naa bel bi foofu la. <laughs> mais El Hadj Mamadou Mbaye Garmi gis nga xale yi. seen waxtaan wax nga ne ni aada ak cosaan dina fa génn ma bàyyi la nga laaj ku ci nekk laaj boo koy laaj Abdoul Aziz damay dara rek ci fondation servir pour le Sénégal waaw bëgg servir nag réew mi uh-huh. war a jëm nag ca bés boobu nga xam ne nii mooy Paris Abdoul Aziz maa ngi lay wax lu mag de uh-huh. ndax dama war a yëngu ci culture ak cosaan ak aada ñaari xale yi ku ci nekk war a fël war a dëgg-dëgg xuus ci biir enceinte yi dëgmal géew bi mais noonu di duggee ndax boobu war ngeen wane cosaan war ngeen war a aada dëgg-dëgg ban ban ban ban ban ban rëy loo xam ne tubaarkàlla moom ngeen di sañsee ndax da ngeen di rendi sëriñ ndax da ngeen di rendi ci bés bi ñëw waaw ndax da ngeen di takk sëriñ njóor ci bés bi ñëw ndax da ngeen di wékkoo sangoor yi ñëw ndax tubaarkàlla tubaarkàlla galañ dañ leen di dal hmm. mbaa dëgg-dëgg dañ leen di suur ngeen ñëw à bés boobu nag cosaan ak aada daf ci war a feeñ ndax nag ci biir làmb ji am na solo de waaye nag jaay la cosaan bi ak aada daf ci war bokk is bis nooy duggee wala dëgg-dëgg eltoon nooy duggee ci suma boobu li waaw lépp lu nga xam ne làmb la ko jël incha allah transféré ko yóbbu ko France bés ndax lépp luy cosaan luy aada luy sangoor yi yaakaar naa sër du des man su boobaa dinaa takk lu ma téeméeri sër ñëw wan tubaab yi suñu culture ndax xam ni dafa riis hmm. ndax bëri dóor Sénégal rek la am ci monde bi Euh, dama mës dem euh, Grand Canaria di fa bëree euh, mais gis tubaab yi foofu ñu mel ni comme senegal bëgg bëre lool mu loolu dafa firndeel ni suñu làmb ji maanaam dafa riis ndax bi ñu demee foofu benn jour dañ doon dox man ak Abdoulaye Wade si mbedd mi. Hmm. ñu ñuy laaj suñu pees ñun leen lu caa ñu ñoom lu caa Canaria lañ wax ñun ñu baamoo dem leen yéen ci ci yéen bokk kon yaakaar naa mbër warul xeeb boppam. Hmm. war nañu gën a mën a fonk mbër. te yaakaar naa ni incha allah bis mi tamit noonu la koy defee ak ñeneen ñu fi teew. waaw incha allah. bis mi. ah bu bés ba moom casque colonial laay wut. ren di segg téeméeri sër jëndee aada askanu lépp gi li ma doon dinaa ko fa jëndee bàkku fa wan leen nag yeneen ak yeneen ni culture Afrique daal laay jëndee loo xam ne surtout sama cosaan muy lébu. kon di nga gumbe di dinaa gumbe. dinaa ndëppat dinaa def lépp. dina yow dinaa. gaal dem na géej ak lépp si biir. gars yi ndoy. gaal dem na géej dina am am am du am. lépp am gaal dem na géej moom day dem parce que bii gaal gi day dem ba Europe. baraxas dina am ca waalo am du am ñaari gorong dina am wala du am. ma ne léppay ñëw incha allah. Cheikh Thierno bul dem. Uh-huh. <laughs> ci bés boobu nag ci ngay jàkkaaru ak xaar may ma jaaga. ndaanaan lu mag li nga xam ne moo doon lu jabu. moo doon lu faa mbay. ñan ñoo koy dar. ci ngay gis ma joojo dar ko ci ngay gis soore ma dar ko ci ngay gis dëgg-dëgg nday may jin ma jin ma dar ko ci ngay gis daal dëgg-dëgg nday faatu njaay dar ko ndaanaan yépp ànd ak maa ko waate ñoom ñëpp ñu ngi sëkku nag ci ngay dëgg kaaroo yàlla boo xam ne bii du xew fenn ci biir si rek lay xew Cheikh Thierno Ndiaye màgget doomam foo koy teg mm. ak formation ba mu def ci Tëngéej formation ba nga xam ni mooy fondation Adja Xaar Mbay ma jaaga mi donn móori ndeyam ju mën a way ja mi donn mbay ma jaaga ca mm. mi nga xam ni réew mi demoon nañu bani xaar fi mu toll de lii ñu ko mën a sagale dolli léppam Amadou Ba Diagne nag moo ko indi te ku sagal xaar sagal nga Abdoul Aziz sagal nga gañ sagal nga réew mi Thierno bu ñu dem ñaari fondation yu mag yi fondation xaar ak fondation Servir pour le Sénégal na ngay daje ca Bercy na Bercy jërëjëf euh, mbokk yi defe naa bu ngeen génnee aada ak cosaan am na ku fi nekk koo xam ne bu xaacoo ñu xam ni géwél woy na mu hmm. doo ko wax léegi bu sekk nga yëkkatil ma sa kàddu ñu jox ko micro bi demal demal tuuti. demal demal demal demal demal dugalaat ko. ñu dem euh, defe naa micro bi accès na ci moom. Euh, Doudou. defe naa dégg nga dama bëgg nga taxaw foofu nga taxaw rek yëkkatil ma sa baat ñu xam ni aada ak cosaan day dem ba si te moom kenn du wax làmb bàyyi la fa. joore samba digi samba demba samba fa ñoore kumba ndaataak bam bi mba pëpp nuy seen yaay ay may seen yaay borom jaam ñi garabe yi garabe abel ay dara maarak maajar mataarak jaara sun kumbalaw beek buubu kumbalaw beek kumbalaw beek kuleen yaa idi ngalla kamaan man usman tukku faate samba la leen digi samba demba samba ko samba jigi samba demba samba fañoore jeg saliji keek joor waynde tan o rega ɓelelaat no kon mbiri ɓayam nga sakkal an sakkor nda maak joor jeeg ngeej joor ma yaa joor mbaaxee joor mu neex maa wo kuy guy ku mam ñaab xujam caat liggéey fa jege ndaw ma fay ak ndoor waaye Amadou Badiane yóbbu nga berseelu fa mosta xew jërëjëf Doudou dégg ngeen woykat a ngi noonu tàccu leen loolu mbokk yi El Hadj Mamadou Mbaye Garmi dafa jaayu ci siis bi mu toog ndax baatu géwél bu jógee dafa am fu mu jëm dafa am lu mu yëngal torchon Abdou Aziz dégg naa loolu mbay torchon torchon waaw dégg la <laughs> kon mbokk yi ngañ eh, bisa ngi noonu ma dafa am koo xam ne dafa am lu mu yenu ci bis bi muy Moustapha Dieng hmm. Moustapha yaa ngi sa micro yaay directeur artistique bi am loo dendal lan moo waral loolu nga dendal nu mu tudd ba ñu koy wax xataane ñu nit ñi ci waa plateau bi nga nga découvrir woon nu ko. waaw salaamaaleykum El Hadj ñu nuyu bépp téléspectateur u TFM ku ci nekk si sa tur ak sa sant di nuyu ñi ma bokkal jotaay bi di leen nuyu yéen kilifa yi ngeen doon di leen jox kenn ku ci nekk ci yéen cëram bu mat sëkk. balaa may ñëw ci présenter lii wolof Njaay def ne bu lëkk lekkee alom na ko gërëme coy hmm. bu ñu nee Moustapha Dieng directeur artistique c'est parce que Amadou Badiane moom ma ko def ah, kon sant ku santul doomu aadama mënoo sant suñu borom ñu tàcc loolu bokk kon dafa am solo ñu koy sant vraiment di ko gërëm parce que c'est c'est un de challenge dafa am vision hmm. te ñun loolu moo ñuy motiver il fallait apporter une valeur ajoutée à la lutte tey defe naa ne ki fi toogal CNG dinay dëggal samay kàddu ki fi toogal amateur yëpp dina dëggal sama kàddu bés Sénégal mënatul rëy rëy rëy rëy rëy ba romb Balla Gaye 2 ak ni kon tey làmb il fallait woon ñu wutal ko valeur ajoutée et foofu la ñëwee faire en sorte que ñu exporter la lutte sénégalaise mmh. waxuma délocaliser parce que bu tey nga tëgg Thiès suba Kaolack wala Diourbel loolu délocaliser la lutte la mais exporter la lutte mooy jëlee ko Sénégal yóbbu ko bitim réew. c'est très important. nasaraan di wax ne la culture est au développement ce que l'esprit est au corps. Hmm. ça aussi c'est très important. la culture sénégalaise la ñuy yóbbu Bercy amuñu yéene yóbbu ñaari grand gaillard ñuy échangeante ay coups loolu boxe la tudd te am na fa mais il faut apporter vraiment côté exotique làmb la culture sénégalaise nga xam ne moom la ñu moom moom la ñu am te foofu je pense que balaa ngay yootu dara day fekk fi nga dëgg dëgër ba pare suñu amul woon fondement amuñu culture amuñu cosaan ak aada kon tey du ñu kenn du du ñu ñee ci dara c'est très important kon maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp vraiment di remercier bu baax a baax a baax CNG di gërëm vraiment le président Alioune parce que aspect technique yëpp jàppale nañ ñu ci donc damay dama koy sant vraiment au nom de Amadou Badiane ak suñu structure bi yëpp parce que tey peccum liir bu neexee nday ci mbagg yi ñoom mujjewuñu puso bi mu réer seen loxo parce que tey ñoom tey bi ñu ko téye mu nice loolu moo waral tey ñu dem ba di ko yóbbu c'est très important foog ñu sant leen vraiment delloo leen njukkal ci li jàppale bi nit ñu facilité mais aussi di di nuyu bombardier ak euh, Baboy doo egsi ci lii présentation ceinture bi je pense que ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk dafa am. wala nu jëlee nañu ko. kenn ku ci nekk ci ñoom ñaar dafa am ay jikko yu nekk ci ñoom loo xam ne ceinture bi daf koy màndargaal. Bombardier ak yi am nañu fulla am nañu fayda am nañu jom am nañu ngor am nañu fit. dëgg la te loolu yëpp dafa nekk ay symbole yoo xam ne dafa feeñ ci biir ceinture bi te defe naa ne Guénion mooy téye tubay. de ceinture c'est très important symbole du mal symbole góor kon ñoom dañ di ñaax nañu bu ñu eggee Bercy ñu bëre bëre bi ci fulla ak fayda xam ne du ñaari tukulóor yu bëre wala ñaari joolaa wala ñaari soose mais ñaari sénégalais lañ ñu représenter la culture sénégalaise teewal fa bés bi bu baax a baax a baax a baax merci beaucoup. Euh, mais bala ngay dem Moustapha ceinture ngeen def nan lay demee organisation bii nga xam ni da ngeen tànn tey ceinture indi ko ak ci yan loxo la war a jaar ndax loolu promotion bi da nga ko war a assurer. je pense déjà bu ñu waxee ceinture bi dinañu dellu si waat ci waa CNG présenté gants yi. teel benn teel yaa ngi noonu gars yi mën ngeen a dugal seen loxo. kon gants yi yi la ñu war a bëree. waa CNG présenté nañu ko léegi. ñu matérialiser ko donc gants yi ñoo nekk nii. waaw ko dugal bu baax. mais ceinture ceinture bi. kenn ci ñoom hmm? moo koy yóbbu xamuñu pikin la jëm xamuñu Mbuur la jëm moom waa Pikine la yéene ceinture bi moom waa Mbuur yëpp la yéene ceinture bi donc tey mooy valeur ajoutée bi ñu indi waaye làmb mën na jéggi coupe jéggi drapeau dem ba ci ay ceinture li ñuy gis ci champion du monde yëpp ñu ko ciy gis mais ceinture bi dina mel ni flamme olympique dañ ko créer benn itinéraire hmm. bu ñu tuddee sur la route de Bercy. sur la route de Bercy. sur la route de Bercy ceinture bi dina jaar ci loxo yu bari njëkk ci loxo ki moom bés bi muy la première dame du Sénégal. Marième Faye Sall na tàccuwaay. c'est c'est très important ñun am nañu yéene di ko tuddee la dame de cœur parce que côtoyé nañu ko nekk nañu ak moom gis nañ ne vraiment sox nit ku baax la. Hmm. soxna su baax la. kon tey ceinture bi dina njëkk ci moom bu ci noppee mu dem ci loxo Youssou Ndour. parce que à travers lamb bi le promoteur le visionnaire sax lañ koy woowee a envie de vendre la destination du Sénégal mmh. c'est très important jaay suñu dëkk won waa bitim réew lan mooy Sénégal ñu comprendre ko bu baax jaar ci loxo le ministre du sport parce que sport la jaar ci ministre ci loxo ministre de parce que culture la ñu war mhm. jaar ci président wu CNG parce que ñoom ñoo ko waral ainsi de suite ainsi de doo ko génn dem ci loxo ku mel ne ay Yannick Noah dem ci loxo ku mel ne Usain Bolt diwlin jënd na ko ay personnalité yoo xam te ne ñu ngi bitim réew te xam nañ ne ceinture bi dina jaar seen loxo doo ko dellu siwaat Bercy le 8 juin mooy itinéraire bi ceinture bi war a jël Mamadou xam nga li mu wax ñu tàcc ko yor yooyu yëpp nag télévision Futurs Médias day accompagner ceinture bi loxo yu mu dugg ñu wax kooku teg ko ci yeneen loxo moo tax olof yi ni loo yor ci ay loxo la jógee tàbbi ci say loxo bu ëllëgee na jóge say loxo tàbbi ci yeneen loxo ñu ni lan moo la ci war na ci liggéey def ci loo xam bu tàbbee ci yeneen loxo ñu xam ne lii nga ci yokk xaas ngañ mu ñëw tey ci ñaari mbër yi ñaari mbër yi loo may wax ci baabo yi euh, d'abord balaa may euh, ñëw ci baabo yi dama bëgg mu présenter ñu gant bi dugal ko ci loxoom téléspectateurs yi xool ko ni muy duggee ci loxo d'abord mu présenter ñu gant yi nañu présenter gant yi dugal ko ci loxoom voilà monter ko carrément voilà parce que amateurs yi xam nga lii day lu bees si ñoom. pour wan leen ne. voilà noonu la demee voilà est-ce que est-ce que sa loxo sa loxo baax na ci jàpp bi voilà voilà jox ko micro bi voilà war jàpp nga ci day jàpp waaw. day jàpp waaw day jàpp day jàpp jàpp day jàpp day jàpp day jàpp bi teel na lool ab. day jàpp de Bombardier jàpp bi baax na. Bombardier. dootal <laughs> nee na ko dootal jàpp nee <laughs> voilà. merci beaucoup. El Hadj Gagne merci beaucoup ci euh, noonu ñu.